xale bi def magam la magam affaire bi nu ko demee man dama ba ñëwoo dama ñëw gis rek daal di fomm fii yëpp léegi ma ne ko kaamu solo sa daal nga dem sa maam jàpp solo ay dalam man daal bi sax mujj ma koo solo ma jox ko maama man xaama yéeg tan yaayu kii ne ma nëbbal ma ko ma dem liggéey après si laa si laa yéeg yes man xaaral yées sama téléphone rek automatique de pipe ma wàcc gisuñu ko nag mais ñoo daa dugg suñu après si laa dem fekk yónni woon naa benn xale muru si koñ bee. xale ma daa sama ma daal dem mu ne ma am na ku ma gis mu yore ay mais xàmmee ma ko si kër mm-hmm. ma ne ko lu mu sol mu ne col bu rose daal la koloo mais xàmmee ma ko fësalu mbokk yaay man mbokk kii ne jël xale mm-hmm. loolu mënul nekk si lañ tuur mbali daal di dëppaat moom mu sedd sonn gisul ñu ne ii lii de dëgg la ma ñëw wax ko yaayam yaayam yaakaar ni comme que man moom dañ maa yokk dañ naan ma yow kafu laa neex après ma daal di dëpp dem ba kaw tali ba wër ba sonn gis ma ma ñëwaat su laa jiire demaat wëraat gis ma ma ñëw ne leen billaahi gis ay la xale bi ban la sol robe robe bu balaa am tip tip yi bu la. solu sax daal mais yor na caabi bàjjanam. Mhm. caabi bàjjanam. ñu yóbbu dinañ a ñoom bëgg na naa see. man daal lenn laa xam ne. Mhm. kon ñëpp dafa war a am caméra bi suuf kon ñëpp ndax kaa yi loolu lañ moo mën a wan ni nit fii la jëlee doom ndax kii si kër gi la ko fekk bu doon dafa génn. ñuy dal dafa gën mais xale bi dañ koo jël def ko comme poupée dañ koy fob maamam rek moo koy téye ak ñun kese te ku mu xamul. du nangu moo tax sànq ma ne est fukk ko jël daf ko xam ah. peut-être ñu bëgg sa biir kër tamit daal lay jël loolu bariwul nee naa est-ce que du kooku daa toog si buntu kër dañu xool dañu xool dañoo dem rek mu daal ñëw jël waaye duñ koy jël boobu yaayam ak papaam ak ay maam kenn nekk fi moom yaayam si waañ bi maamam si néeg bi di ndékki moom ñu koo ko kaay ndékki mu yore bal bi di foo maam di bàjjan di di koy làqatu pour mu dem ma teg daal yi daal di yéeg wàcc ñun nag xamuñ xamu heure boobu doo xam ba xam daa dem wala jël na jàmm macha allah di ñaan sama doom ji yàlla na feeñ ci jàmm si ba Seydina Muhammad ñun ci suba dañu xëy man dama liggéey woon maa ngi wàcc ay 9 heures ma dugg si biir néeg ma ne sama doom bi dama jëndal ma ndékki mu daw di jënd ndékki yore mburu bi daw di ñëw suñu benn doomu dëkkandoo daw na ko ndey Aïda de gis naa ku ko yore mi ngi jaar nii di dem léegi mu ne ko kan mu na ko ah man xaw ma ko parce que kooku xaw ma ko ci kër gi xàmmewu ma léegi nag mu ngi jaar nii daal jaar na ko ñu ñuulee mi ngi dem léegi sama doom bi daal di jël mburu mu yore dafa am joxoon ma sama yaay te nga ñëw wan ma fan la ko kii léegi xale bi ñëw rek sànni ma mburu mi rek daal di dawaat jéem sama doom bi balaa muy laaj ci kër gi nag dafa jël amaan bi ñu kii bi surveillance bi jël na yëpp xale bi à part fii këram fan la doon fooy wala amul fenn demul fenn xale bi miinagul sax bu baax pap ba yaayam ba mu juddoo yaayam dafa demoon seen kër nekk fa ba temps yi lay ñëw amagu fi sax ñeenti semaine yu mat xanaa amagu fi sax weer ñun sax miinaguñu bu baax moo tax ma ne ki ko jël xaw mu ko jëlee mais doy na waar ndax kii turandoom la mais bu ñëwee day façon tàngal bu nekk da koy jël di ko jox pour jël ko day bay xale bi ku ko jël si kër gi day bañ suñu miinee ay semaine dong lay toll nii la ko ñu. moo tax ma parce que xale bi xale soo ko jëlee te xamul la rek ba ci lii di nga xam ne ndeysaan dañuy am ay 6 mois. ñoom miinu soo leen jëlee te xamuñu ne yuuxu. da mhm. bi te bi yuuxuwul loolu yaa quelque mhm. ba pare ndaw si heure bi mu jël xale bi daf ko xam kon loolu yàgg na ko si wala mu topp ko. Mhm. parce que fekk nit këram nga daa koy coppati loolu métti na loolu. heure bu mu ko jël daal mooy oto mbalit bi ba muy jël mbalit day ramasser mbalit fa 10 heures 11 heures. kii midi euh, kii yooyu Euh, neuf heures dix heures mooy même surveillance bi heure boobu tamit la gis ne xale bi ci heure boobu lañ ko jël kon doo police yóbbu nañ ko police mhm. ngi def registre ñu ngi xale ñun suñu xale kër duñu dem fenn mais kuy nàmp xam nga dem mu fenn moom ku ko jël moom xaw ma yow yàlla yàlla rek moo xam yàlla na ko yàlla nii mais xaw ma mu ko jëlee waaye comme ba fu muy mënti yem buñ ko waxee ci biir kër ko fekk xale bi du dem fenn wala kaw ñu si kaw moom moo doon togg si waañ moom rek moo fi nekk ñu si des ñëpp dañoo liggéey man 9 heures laa wàcc dugg li diggante bi may waxee xale yi defaral leen ma ndékki ki ma doon jënd li ndékki moom lañ def wax ko lool ci suba ci suba diggante 9 heures 10 heures moom waaw boobu ba léegi nag ñu ngi nii di wër gisaguñu dara waaw yal na yàlla indi ko nee kun ndax yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ñu ngi koy ko a tëdd ndax nekk na loo xam ne metti na trop ndax kum doon yowit di yow surtout yaayam nga xamante ni ndeysaan doom dafa jege yaay ni ko sama yaay di waxee metti na trop ma ne maay këpp sax xale dañ may moom macha allah ñëpp ko xam mu am ak jàmm ñëpp macha allah xaw ma nag lii nu mu demee waaye yal nañ ko yàlla nital si barki sëñ Babacar Si joom bi nañu jaaxle nag wax dëgg yàlla gaaw na xale bi demul fenn demul fenn demul fenn demul fenn munul wax munul dara te yaayam it fu mu génnee rek yaayam mi ngi daw topp te demul fenn. moo tax ma ne la sànq affaire bi dafa takk la ba nit ki lay sàcc en général dafay fekk mu xam la waaye nit kii tamit kii kër sa doom parce fois instant yi Sénégal dafa metti noonu laay foo tourné xale yi ndaw yi ñu ngi leen di yóbbu ñu ngi leen doo comprendre wala da ngay gis maman doom du jàngi parce que dama bañ ñu sàcc ko loolu tamit dafa metti doo bàyyi sa doom muy taxawaaw wala sa doom rak te man maay seen mag ñoom ñëpp ku daw sama saal bi mooy seen grand place xale bi ko gis sax mais sama néeg bi mooy seen grand place. xal bi nag bi ko gis. ki ko kon ne daf ko topp dina xam fan la aw. mais la fekk mu duggaat ci kër gi loolu ma ko gëlëmal. ma ngi naan moom sax mi ngi ne def na duut si femme bi ndax mi nee ba muy daw femme bi mi ngi koy geesu nii. moo tax mu def duut nag si xale bi mu daw nag wax ne sama doom bi ndey am na ku gàddu ay de mais xàmmewu ma ko. kon xale bi tamit moom def xale la 11 ans la am. Mhm. waaw. Mhm. ki gàddu ay date xam ngeen ko de. ah si sama xalaat. parce que nit su lay jël sa doom ak heure bi mu dugg ci kër gi te xale bi du dem fenn kon kooku yàgg naa romb ci kër gi wala mu xam papaam wala mu xam yaay mais incha allah lépp ah, parce que léegi am na ku ma woo léegi. Mhm. mu ne ma dafa demoon bopp xaw ma di jënd si Brioche Dorée nee na gis na benn femme bu boot mais xale bi dafa rafet nee na man maa ngi koy xool léegi lan ma woo mhm. ci loolu laa doon mhm. xaw ma nag yàlla mais nee ba mu demee këram mu xool portable am mu ne eh kii. ak xale bu ma gis léegi léegi. teg teg moo tax mu gis mu woote si numéro mhm. yónnee naa nag pour ñu xoolal ma ci Brioche Dorée boobu. Mhm. bu dee am na caméra surveillance. Mhm. nga bu dee yaa ngi may dégg nga xoolal ma rek ci ngir yàlla njaboot. bu dee même teg bu dee kooku la ñu xool yónnee naa nag ñu ngi dem di xool. asalaamaaleykum kenn ku nekk maa ngi nuyu di ziar dama dama jaaxle dama sonn ndax lii xaw ma lii lan am lii daal may teew waru am baax na tabe na lu mu am bokk doomu aadama kon nag lii bu dee noonu la yal na ko yàlla toroxal bu dee ku ko bañ la yan na feeñ ci barke yonent bi mu am bokk na ko doomu aadama kon nag doomam bii ñu jël ñu ko jël balaa suba yal na ko suñu borom feeñ ci barke Alxuraan Karim nu naanu nu def nu leen kii jël doomu jàmm bii na ko andi ci bëkk bu soo ci bëkk seen fan ci bëkk sama kooku rek Mbàkke ci liggéeyu ndeyam ak Mbàkke bàyyam ndax ñëpp jaaxle ah suuf yëngu na bàmmeel yëngu na bàmmeel yëngu na tey lii tey bu wax bal dina tàkk xalifa yaa moo seen man amee du mu nga see mënta ñëw góoyal li def lii moo nekk saa man ay 10 heures lañ ma woo. ñu mooy ay 10 heures ma yaakaar maamu ñu ma meer doomu saa duñ ko jël leen seen li ngeen di wax lii seen seen kii ngeen di ay xeer te poison la kii. waaw mu la uh-huh. ma ne sama set fi mu ko ci doom gëmuma ko ma jaay ba wàcc sangu ba set jàpp bi man daal damaa toog yàlla bi ay 5 heures rek 10 euh, ma dégg ñuy wax doomu daal nekk doomu daal nekk fii laa si ngoon ci njëkk laa gën ba léegi kon nag yan ko yàlla nit yan na ko yàlla bi bu dee jëmm ji dafa jël xale bi pour bu ko toroxal moom ki mu jël moomi la xamul dara ñëpp sonn ñëpp a jaaxle koñ bi kenn añu kenn reerul ki nag moo gàll suñu àq waaye xale bii bu dee set na mu seq ko yaayam bi di euh, di fàttali ki ne doomam bi yéen ko yàlla feeñal yaa Rasulullah ci barke yonent bi yàlla na yow ñu ngi lay ñaan ci sa baax yàlla na sakk bu ñëpp gune gii balaa ngi tudd biir ci kaw euh, lal yéen ko suñu borom feeñal ndax ñëpp jaaxle na Pikine tali bu bees tali bu mag marché kenn añu kenn réeru xale bi yéen ko yàlla ko yàlla ñëw ci barke yonent bi loolu la am lu may wax maam nag bu góor jaaxle na trop kër gi nag kenn ku nekk maa ngi nuyu di la ziar ndax tey bu ñu te zaar jàpp bu bon kon ñu dem ko waaye zaar baax na bañ koy wax kon nag doomam bi ba feeñ bayuma kenn nag bayuma góor bayuma jigéen njëkk yeeg loolu ñëpp maa ngi nuyu kon nag seen turandoo bi ak sama sët bi yàlla ko suñu borom feeñal ci barke yàlla loolu la am lu may wax asalaamaaleykum ñu ci a a baax bu ko la xam ne ñu ne affaire bi ndax na torop ñu gis ne metti na ma moom a doon ba bàyyi ak yàlla yàlla ki dara tewul ni ba jël ko yóbbu ku jigéen ki ñëw jël ko yóbbu yàlla du dara te gis na lépp xam na lépp mën na lépp yal na ma ko yàlla womatal ba mu dellu si waat ci biir kër gi te dara bañ ko ci dara jamono ndax sama njaboot gi sonaluñu ma benn yoon sonaluñu ma benn yoon man naa tukki am ay at ci àll jàmm ji ma waccoon ci kër gi bu ma dellu see fi laa koy fekk xuloowuñu xeexuñu ngaayoo bëgg ma nag lu waay yëkkati yéy ne na ma ni sama yaay sama yaay wala bu doon sama sama sama njaboot yi kenn du am dara lu leen métti ci seen i njaboot yàlla ki mën a leeral yàlla ki mën a niit yàlla na ma niital ay da jaan ba delloo si ko ci biir kër gi fekk ñu fee jàmm ak salaam dara bañ ko ñu ci dara jamono xale bi bi may ndékki ci sama néeg moom ñëw na ba dugg ci néeg maamam ju góor ni ko ay da ñëwoon ndékki mu tey sama rido mi ba yàgg daal di ma koy sànni oto mbalit bi ni piip ma jóg bëgg a tuuri mbalit sa doomu wali mata jaw bi nday farma ni ma maam dañoo ngi tuuri mbalit man ko daw leen bala leen oto bi di ci biir kër gi la ko fekk jël ku te nee na jigéen la nekkul ne daf ko a ah, xam kër gi a ah, mhm. ah, xam yow yàlla xam ndax bu ma ci wax lu ma xam kii daal moo doon tuuri mbalit nga andi nday farma mii mhm. xale bi gis ko daf ko ni kon ayda de am na ku jigéen ku ku ko jël ñu man sax woo naa xale bu góor bi mu ñëw man ko ku jigéen ci fu mu fekk ci biir kër gi la ko fekk wala ci biir mu ne fii la ko fekk jël ko yóbbu ñu ngi muuroo col gu jaune. col gu jaune. Ah, ah, maman ñu seetlu ne loolu dafa bari loolu ah xale yi ñuy jël ñu leen sàcc di leen yóbbu bari na trop trop trop bu njëkk tamit est-ce que jotul ñu def benn marche wala ñu waxtaanal suñu biir pour tamit loolu daal ñuy abal. man day gën naa mën naa ko sama waa kër sax dañu dem fenn ñoom xale koñ bi sax waa koñ bi dinañ ma seede ñoom ñooy ñëw fi fréquente ci biir kër xuloo wu ñu nag xeexu ñu ñu ngi foo di ree ku ci nekk toog fii di seetaan télé ci salle bi ak yooyu sama doom ji affaire football lay nekk xale yi nag gën a ñëw ci moom loolu moom moo leen fii xuloo wu ñu xeexuñu ñu naanuñu sàccuñu alalu kenn indi luñ ma benn histoire dégguloo ma ne la man su ma fi jógee mën naa tukki at jàmm ji ma bàyyi woon sama kër ma dellu seen moom laa fiy fekkaat yàlla suturaal na ma ci loolu sama njaboot ñoom ñëpp benn lañu waa koñ bi ma nekk leen ñëpp benn lañu wax dëgg yàlla te suba bi amee ñëpp bàyyi seen i kër ak seen i lépp góor ak jigéen kenn toogul kenn toogul kenn toogul góor ak jigéen ku ko ci dégg di sama mbokk ci am waajuram tàngalul sama xol lu ma am bokk na ko li waajuram seralee sama xol yal na ko yàlla leerale lii mu leer naññ bu mu ñëw si jàmm ak salaam loolu daal laay ñaar ci kàttanu yàlla ci jëmmi Mouhamed barka seexal xalifa ba Babacar Si yal na ko yàlla nii in delloo si ay dëgg fekk yàlla yàlla na yàlla dégg amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi match bi ba nan nga maa ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm tam ci déplacement bi député ngeen ak affaire bi ba léegi toogoo leen ñuy yéen ñuy dëkkandoo yi ñuy waa koñ léegi ñëpp kenn toogul métti na trop. affaire bi fii la fekk bi muy am. waaw ci suba fii la ma fekk ndax man dama yeewoo di roon pour sang pour xëy mi ngi toog ak maamam. maam defal ñamu xar bi xam nga dafa takk maam ji maam ji di defal moom mu nekk si affaire takk si lépp la ci loxo yi par la suite ba maam ji paree nee ko dama raxasu ji fekk maa ngi root siwo bi nii mu ñëw dékk si ay loxoom laa di koy dékkal ndox mu raxas loxoom delluwaat ci maamam maam jëlaat xar affaire bi yéegal xar yi dem di ndékki ji man ma yéeg dem sangu ba ma sangoo bay wàcc bay xëy rek tombéeg juste moom ci fi maamam toog buntu kër gi xale baa ngi toog yar bal bi fekk yaayam mi ngi ci waañ bi di toog mi ngi dëbb nii ma daal daw teg sama caabi ak samay bagage yu ma yore woon ma ne ma ne yaay ji ay da mi ngi nee taxaw su may génn li xëy di mooy toog te ma ko yóbbu yaayam nag du ko yóbbaa ko yóbbuwuma ndax guddi gi saa mu ñëwee guddi gi si guddi gi damay ànd ak ñoo ak sama beneen doomam bi yóbbu nañ atelier dañuy toog foofu ba ay minuit ma indiwaat leen man ma continué waat moo tax ba ma xëyee gis ko mu togg ëtt bi moom kase rek ma ne du ma koy làqatu parce que su di ñëw ne xale bi dem na man gëmuma ko parce que affaire bi mënu woon gaawee noonu daal nga xam naa bu koy dafa xool kër gi instant boobu mi ngi foo si bal bi ñu ñoom gis nañ ku ko yóbbu lii lañ si am lii lañ si am dafa bari loolu dafa bari loolu jël xale di yóbbu sax laa ci loolu waaw que chaque jour dégg information bi affaire yooyu moo tax xaw ma xaw la bu mu nekk ñi ñaan yàlla yàlla mën a feeñal yàlla na ko feeñal te buy ñëw yàlla ñëw ak sagoo yàlla duñ ci am dara loo xam ne dañuy métti daal baa muy jaaxal suñu coono daal yàlla yem si wër bi rek te buy retourné waa dañu retourné ko si conscience am tranquille ak yaramam santé moom lépp waaw ngeen jëf am ñoon fii Pikine di bokk ak métit bi ak tis bi yéen mu nekk lu métti lool lool ay daa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parents tamit ñu gën a mën a farlu rek ñu ko gën a farlu waaw ah, parce que jamono ji dafa doy waar loolu loolu nga xamante ni ndeysaan dafa nekkoon ci këram di foo nekk ay famille ñu daan ko fay fekk daan koy jël daan koy yóbbu mu nekk lu metti lool ñu ñaan yàlla suñu borom rek yàlla ko yàlla gaaw indiwaat balaa suba ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam metti na metti yaayam ah mi ngi jooy rek boobu léegi papam tamit parce que nit ki tamit soo àndul ak sa conscience tranquille rek doo mën a toog bay wax metti na leen trop ba mënul toog sax ndeysaan daal di wax mais incha allah rabbi yàlla dina defar lépp yàlla baax na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 Dakar, notre plateforme d'information.